muy maye joxal ma ko ak taxaw xaaral bi bii dafa bañ xaaral xaaral xaaral. non non xaaral. test micro test micro am am yow na ñaar yi dem ah ne ko teg foofu rek ci kanam. waaw boo cadré ba pare nga kiiwal ma lii ba yëkkati kii ko kiiwal ma lii. dégg nga. waaw naa ba pare mooy teel ma nii. teel ma nii ma pare.

bu ko faale bu ko faale loolu dafa xew saa yi moom liggéey nag ah man ay toogal li ma toog. bien organisé j'allais même dire très bien organisé nous allons vous entretenir d'un certain nombre de thèmes qui seront introduits par différents leaders. On va commencer par le président. baal sama sax vous parlera de l'état de la démocratie en faisant référence essentiellement au cas de du président Ousmane Sonko. Et il vous parlera aussi du rapport du groupe des procédures du Conseil des droits de l'homme qui a diagnostiqué la situation politique au Sénégal. Euh, la présidente va introduire les thèmes relatifs à la, au rapport de la Cour des comptes, à la Cour de la Chambre de discipline financière. Et nous terminerons par le président Ousmane Sonko. On parlera d'une relative à une enquête judiciaire en Méditerranée et l'autre, et une convention l'extradition entre nos deux pays et il en profitera pour euh, autant pour moi, il en profitera pour faire une adresse à la communauté internationale. Vous m'excusez, a le président Cheikh Tidiane Diom, après la présidente Aïda Mbodj, qui va parler de ces trois thèmes dont j'ai parlé tantôt, le rapport de la Cour des comptes, la Cour de justice et la Chambre de discipline financière. Mais auparavant, comme le fait d'habitude le président de la conférence des leaders, je une petite introduction. Une petite introduction. sur l'État du Sénégal et particulièrement ces appels pressants de certains segments de la population sénégalaise appellent à la paix et la stabilité. Je vous ai dit, le il veut la paix. Et il faut s'interroger pour savoir de quel paix il veut. Et c'est ça notre différence. Radical, il veut la paix de la force brandie au nom d'un grand maître. Et certains vous diront, c'est le temps Faye Sall benn bokk yaakaar bu affaire. mais dans quel but? dans le but de fonder un empire une puissance de domination qui s'accapare du pouvoir étatique aussi longtemps possible. C'est ça ce chef qui veut la paix. Et pour le faire, il a un objectif. Et pour atteindre cet objectif, il lui faut essentiellement deux moyens. Allô maa ngi koy defar maa ngi koy defar des moyens financiers et des moyens politico-judiciaires. def naa ko mais ñëw dama changé. c'est cela que conçu même avant son accession au pouvoir. taal nañ ko waaw tàkk na. aussitôt qu'il s'est installé on a Deux moyens politico-judiciaires, le deuxième. C'est ce qui fait qu'il a... de sursaut ces instruments politico-judiciaires. Mais malheureusement pour lui, il s'est heurté à la résistance populaire. Et il sait qu'il ne pourra pas aller loin. c'est sa conception de la paix. Il faut que les gens le comprennent. Mais nous, à Yéviastemi, comment nous concevons la paix dans ce pays Pour la souveraineté. brandi à mon avis, les issues aussi sont au nombre de deux. Le premier, il faut que c'est à lui de prendre l'initiative en ayant conscience et comprendre que la sécurité du Sénégal, la sécurité du pays transcende la Constitution. la sécurité du pays transcende les lois. Que la sécurité du pays transcende les règlements. ça, c'est sa responsabilité. C'est ce que disait d'ailleurs dans un de ses passages, comme les gouvernements de l'équité militaire, le chef des Galopés qui disait la stabilité, la stabilité est un privilège et un devoir à vous, princes de monde. Donc la stabilité et la sécurité au Sénégal aujourd'hui, compte tenu de la nature du pouvoir, est un privilège et un devoir de Macky Deuxième issue que personne ne souhaite, c'est qu'il fasse le fossile et après c'est l'implosion. Il n'y a pas d'autre choix. Et qu'ils comprennent, de la grande royale qui disait que mon grand-père attacher plus de prix à la liberté, à la vie. Et c'est dans cet état aujourd'hui que se trouve la jeunesse sénégalaise. En faisant le forcing, personne ne maîtrise plus rien. il n'aura pas compris, comme je l'ai dit tantôt, que la stabilité et la sécurité transcendent les lois, la compétition et les règlements. Euh, je suis c'est tout simplement pour vous envoie aux leaders qui auront certainement mieux développé que moi certains aspects dont je vais parler dans mon discours. Ceci étant dit, je donne la parole au président Bédéval pour parler des thèmes que je vous ai rapportés tout à l'heure. Merci. c'est pas si ci waxtaan bi di wax rek ni gisuñu lu tax point de wala am ñuy mobiliser la gendarmerie devant les sièges des leaders de Yewwi Askan Wi et vous avez vu ce qui s'est passé avant-hier mais di préciser également que loolu taxul ñu reporter point de bi moo loolu ça n'a rien à voir de presse bi ñu koy reporté xamuñu woon sax li ñooñu moom mais c' loolu béy na ci wan askan wi que président Macky Sall doxul ci jàmm doxul ndaxte je pense pas yéen a dem fépp que mos na am benn point de presse am siège benn bokk yaakaar. gendarmerie war ko ñëw taxaw je ne pense pas pourquoi donc ñu war am fii point de presse gendarmerie war ñëw taxaw quatre mille fii yooyu ay provocation yu inutile parce que ay kilifa moo fi nekk te ay kilifa yi nga xam ne kenn amu leen ci pas donc loolu laa ko arrêté pour revenir ci sujet bi nga xam ne moom laa war a wax mën naa ay rappel rek lay doon parce que yéen ñëpp vous êtes témoins bi nga xam moom dañu ko résoudre ci man dama jël sama bopp def ko ba man maay xool maintenant Sénégal lan lay doxee démocratie texte yi li mu wax ba teg ko bëri def li nga xam ne moom la sama bakkan bëgg moom la sama njaboot bëgg. moom laa ko am unité bii moo fay loolu le président Macky Sall nekkoon et des fois dañuy fàtte des fois rappel am solo déjà par deux mille dix ñuy nekk si ci élection présidentielle yéen a ngi fàttali parrainage bi ñu ko dugalee ñaata candidat la ci pourtant les gens l'oublient rien que par le parrainage il avait éliminé 23 candidats ba mu amoon groupe des 23 bu 27 yi déposé wu y a que 4 yi nga xam ne moom la accepté ba mu amoon le groupe des 23 am na mu bare nga xam ni maa ngi leen di gis ñu naan jamais 200 ñi bu ñu leen par le parrainage nii ñu jéem leen éliminé par la justice. muy le président Khalifa Ababacar Sall ak président Karim Meïssa gis nga Sonko président Sonko dafa am kersa ci wax ji ñaari yoon déy na ma ni ma bul tudd ma ni ko ñaari yoon ma ni ko wax ju yàqu la ni ko wax ju yàqu la parce que nan lay yeewi askan wi pour la première fois depuis que cette affaire de renvoi de la chambre criminelle amee ñu taxaw jàkkaarloog askan wi wax lépp sauf tudd loolu am na li nga xam ni góor mënu ko nawlante mënu ko mais je le comprends parce que c'est un leader buggul yooyu mais am na li xam ni ñoo ko dul ñoo ko dul xaar lu mu bëgg ak lu mu bay pour dire tout simplement au président Macky Sall <coughs> jamais deux sans trois il n'y aura pas de trois et les deux vont revenir aussi simple que ça parce que en réalité il faut que muy mën a mesurer état wu réew mi fi mu toll psychologie sénégalais yi fi ñu toll gis nga ñëpp ñoo ngi inquiet foo romb nit ñi ñoo ngi in am inquiétude kilifa boo toogal ñu ngi am inquiétude du Sénégal pour lan pour benn nit président Macky Sall bëgg-bëggam pourquoi mu war mettre réew mi ci situation bi war ko mettre ci tension bi war inquiéter les Sénégalais war inquiéter les Sénégalaises war inquiéter la communauté internationale war inquiéter les investisseurs qu'ils soient des investisseurs nationaux ou des investisseurs étrangers pour ki nga xam ni yow da nga war a dem dem képp nga deseeg sénégalais nga war leen plonger dans cette situation parce que tout simplement non seulement buggoo dem ensuite képp ku ñu jàpp ni dafa war dem nga ni kii nii dama koy faagaagal waxtaan bu jotee wax dëgg da ci am solo mënuñu toog en deux mille dix en deux une seule porte moo ko dese la porte de sortie pour le maintien de la stabilité et de la paix muy engager encore cette direction de vouloir éliminer les politiques. c'est par Ousmane. parce qu'il s'agit de la démocratie et de la liberté. yow sa affaire la wala bu dee ci du la soobu fa ngay def ay erreur est vulnérable comme toute personne bi nga xam ne moom laa et on ne peut pas réduire notre ce que je vais vous dire tout de suite, parce que là, c'est Yehui Askanui qui parle, différemment des partis politiques qui ont à se... Instantanément, quand cette affaire a été prononcée et renvoyée devant la chambre criminelle, ce que je vous dis tout de suite, pas et Yehui Askanui résistera. Parce que suñu devoir historique la gis nga ñun def du pour ñun dama bëgg di ko fàttali tout temps jóg guddi ak bëccëg di liggéey de sept du matin à cinq heures du matin xam nga ni dafa lëkk pour sa bopp da nga ko def pour askan bi da nga parce que politique benn juum du lu yomb ngay toog guddi ak bëccëg li nga xam ne yaa koy dundee ak kooku yi askan wi jaar ko jaar et ce devoir là par rapport à l'histoire donc le mbir et comment les personnalités politiques ainsi de Sénégalais nga ni du demee noonu léegi finalement oublier la démocratie oublier les textes oublier les lois léegi finalement suivre vraiment sa volonté mais avant lui le président Abdoulaye Wade wax ma tan na fi jéem a écarté l'opinion pacifique et la liberté d'association du groupe de travail sur la détention arbitraire et un rapport spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. C'est ce de travail qui a envoyé, adressé une correspondance à l'État sénégalais. Parce que ñooñu dafa am ñooy signé ak ñoom ñuy xool est-ce que yaa ngi koy respecté wala respecté woo quand aujourd'hui, ils disent, dans ce même rapport, que face à la mort de quatre manifestants, nous réaffirmons que le droit à la vie <coughs> constitue une arme de juste cogène et de droit international coutumier auquel aucune dérogation n'est autorisé en toutes circonstances, y compris dans les contextes de manifestation. Tout décès dû à un usage excessif de la force par les forces de l'ordre doit faire l'objet d'une enquête approfondie, rapide et transparente, conformément aux principes relatifs à la prévention efficace des exécutions extrajudiciaires arbitraire et sommaire et au moyen d'enquêter efficacement sur ces exécutions et à la version révisée du manuel des Nations Unies sur la prévention des exécutions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires. Et ils disent, en poursuivant, nous exprimons également de graves préoccupations quant aux allégations d'interdiction de rassemblement pacifique qui, si elles s'avéraient vraies, constitueraient des violations du droit à la liberté d'expression et d'opinion et à la liberté de réunion pacifique, contrairement aux dispositions du Pacte international des droits, des droits civils et politiques. de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et de la Constitution sénégalaise. Et ils interpellent, en relation avec les faits allégués ci-dessous, nous vous prions de vous référer à l'annexe 6 jointe qui énonce les textes relatifs aux instruments juridiques et autres standards établis en matière de droits humains. Nous émettons cet appel afin de préserver les droits des personnes susmentionnées, arrêtées et détenues d'un préjudice irréparable et sans préjuger d'une éventuelle décision de justice. Donc il revenait sur toutes les arrestations du am ci mois de juin sur toutes les décisions de justice ak ceux qui sont encore en prison supposés appartenir à des forces spéciales ceux qui avaient été arrêtés Vous vous souvenez, on était 83 en son temps à être jugés en même temps. Et il parle même de plus. Il a arrêté un peu partout. Le, je, je dis que le Sénégal a répondu. Le Sénégal répond, mais vous donnez c'est une réponse. Vous, vous allez avoir le document. Pour dire ce qu'ils veulent, comme dans leur habitude. Alors que Yenyep, Puis, l'interdiction des manifestations est la règle, l'autorisation est l'exception. Et ils disent, eux, le contraire. Ils, en, ils, ils avancent des chiffres d'autorisation. Il y a une demande unité au Sénégal. Et 6250 demandes en un an Sénégal, ils demandent pour nous jouer. Et pour dire qu'ils sont seulement à 1,50% d'interdiction. Ils 6000 demandes pour nous jouer. Donc, pour dire que, vraiment, dafa am kenn ki utiliser benn mot ma koy jëlee ci moom souvent bu ma nekkee États-Unis muy Ousmane Tounkara bu ñu waxee mu décce tappale gee bare mais tappale bi gouvernement bi nekkee moo bare il faut que tappale boobu wàññeeku parce que gis nga jàmm dafa am solo ci réew te jàmm ku xam développement réew moom ngay ñaan te ñu nekk ci table bi loolu rek la ñu bëgg mais Macky Sall na bëgg loolu te noppal boppam te na bëgg Sénégal yi te yërëm Sénégal yi te yërëm boppam mais yoon bi mu jël baaxul na ci génn te yoon bi mu jël adduna bi ñoo koy wax na ci génn on va vers une élection présidentielle une élection extrêmement sérieuse élection bi nga xam ni day doon un tournant ci Sénégal ak ci Afrique pourquoi Sénégal parce que Sénégal bu am une nouvelle page la am Sénégal bu yàlla def ci ñaanu nit ñu baax ñi tey jii ñi am fi ak gaz am fi ay richesse yi nga xam ni ñu bare ñoo ci teg suñu bët Sénégal googu beneen direction la jëm yàlla def na xëy na bëggoon na mu tombe ci moom mais tombewul ci moom li ciy ruus mais ci ku mu tombe ci beneen Sénégalais na xam ni c'est le Sénégal qui gagne te bu mu jàpp mukk nii il est le seul à pouvoir diriger le pays gis nga ñi mos sa jàpp ñëpp ni ñoom képp la ñoom dong la yàlla won na leen bataay ñu ni ma la sàkkee laa sàkkee ñeneen li ma def ci yow la def ñeneen dix-huit millions de Sénégalais il peut pas se dire qu'il est le à avoir la compétence et les aptitudes pour diriger ce pays deux mille vingt-quatre keneen moo koy diriger et pour la paix pour la stabilité na bàyyi ñi ko bëgg diriger ñëpp ñëw bokk kooku ndamam la sagam la sagu bépp sénégalais la mais bu jàppee ni tey moom la war a doon du doon keneen et képp ku mu xalaat ni moom la mën a doon da koy song ñu ngi juum parce que loolu li wér mooy kenn du ko ci seetaan benn sénégalais du ko ci seetaan benn kilifa diine nga xam ni danoo am cër ci réew mi duñ ko ci seetaan communauté internationale nga xam ni danoo am cër am li nga xam ni moom la ñu bàyyi xel ci Afrique ak sous-région dun ko ci seetaan kon na génn génn bu rafet kon daal di wax ci gàttal que Yewwi Askan Wi reste plus que jamais déterminé pour la défense de la démocratie et la défense des libertés Yewwi Askan Wi reste plus que déterminé et soudé autour et aux côté de leur ami et leader qui membre de cette coalition muy Ousmane il ne veut pas parle sëgg bi ma sëgg du ma de yëpp loolu la woon mais on n'a pas le choix parce que c'est pas sa personne c'est la démocratie qui nous mobilise c'est les libertés qui nous mobilisent aujourd'hui il est victime d'une démarche et nous dénonçons cette démarche et nous allons la freiner et c'est ça que je voulais donner comme message je vous remercie. jërëjëf président Déthié léegi ñu jox kàddu gi la présidente Aïda Mbodj Super Linguère. oui c'est une information de il faut la comptes la cour de justice la chambre de discipline financière.

di nuyu leader yi di la nuyu monsieur le président di wax ci li nga ma waxloo di ci sawar lool ku nekk xam na ni rapport Cour de comptes bi jàpp naa ni lii fi xew yépp moom la li ko waral moo di dañu bëgg ñu fàtte dossier boobu te dafa am ñaan goo xam ni sama benn mag Adja Fatou Ndiang Siga daan na ko ñaan ca Ndar daan na wax naan ku ma teg lu di sel na la yàlla teg lu tax nga fàtte ma ñoom nag dañ ñoo bëgg a teg waa senegal lu tax ñu fàtte rapport bi li naqari waa senegal te mën leen a naqari aujourd'hui te mën leen a jógloo mooy ñaari yëf doomu mooy ñu toog jàkkaarloog waa senegal les yeux dans les yeux ni leen li ñu bañaloon Ablaye Wade muy troisième mandat dinañ ko nangul Macky loolu di bis buñ ko waxee nit ñi lu ñu jàppoon dinañ ko bàyyi jublu ci moom beneen bi ci des mooy ñu ni ko Ousmane Sonko mii du dem présidentiel loolu de mën naa yëngal dëkk bi looloo tax bi rapport bi génnagul waxuñu woon dara ba rapport bi génneeg léegi lu nekk ñu laal ko laal ci seen jë loolu nag na ko sénégalais yi comprendre te rapport boobu muy dossier boobu kenn du ko bàyyi ndax dégg nañ fi lu nekk ndax nee nañu dinañ ubbi information judiciaire pour dage pour entendre leen non duñ fa yem duñ fa yam parce que rapport bi dafa constater ay défaillance défaillance bi ñu jëkk a mooy la défaillance de l'exécutif ndaxte su fekkee ne def nañ li nga xam ne moom la ñu li xew-xew na muy Covid bi ñun ci suñu générosité opposition bi dama koy wax le mois ay haïssable mais damay fëgg dënn ni ñun opposition bi mu wooñu ñu wuyu ji ko bañ ko wuyu jee bi ñu génnee lañ ko voteel loi d'habilitation bi booba yegg gunu assemblée muy question de confiance parce que loolu diggante nit ak nawleem la ni ko Sénégal bu soxlaa ñëpp ñàkk dañuy nekk ci disposition Sénégal ñu voté loi d'habilitation ci condition yoo xam ne kenn xoolul kenn gisul ñu daal di ko au mois de mai le 6 mais ñu voté benn loi boo xam ne day inclure la responsabilité des ministres parce que boo demee ca décret ba dafa ni article 4 daf ni les ministres sont les principaux ordonnateurs des crédit en dehors du fait que ministres yi ku nekk xam na ne ñooy responsable lu crédit seen ministère moom président Macky Sall bi mu nekkee premier ministre dama koy faral di wax 40 mois yi mu nekk premier ministre yëpp maay ministre de la femme mais bu daan def arbitrage budgétaire daje du ñu ñëw. yow ministre bi yaay maîtriser say dossiers avec Hadjibou rek la ñu commencé parce que moom da doon travailler ak DAGE parce que financier la mais arbitrage budgétaire ministre bi mooy ñëw défendre son budget seet lu mu ciy dindi seet lu muy remplacer seet nu muy restructurer budget muy wax ak son collègue du ministre des finances seet nu muy defee virement de crédit waaw léegi ministre ñu jox ko budget dans un contexte particulier de Covid ay dee am ci ay lu nekk am ci mu lancé ay marché yàq euh, marché respecté wul norme yi ki war a exécuter marché yi exécuté wu ko ki war a définir norme yi surtout équipement wu médecin yi defu ko corps médical bi defu ko mu ni ministre boobu yoram du ci nekk nañu tàppe ci daaj bi c'est injuste c'est arbitraire te loolu yeewi askan wi du ko soutenir parce que mësuñu soutenir l'arbitraire mësuñu soutenir l'injustice et ce dossier là ak lu mu mën a indi ci suñu kaw kenn du lâcher dossier bi bu sonnee ba xam ne yooyu muy jéem a indi du jariñ dara parce que daf ñuy divertir ndax yoon nañ ci dëkk bi te lu ci nekk on aura la possibilité de lui montrer que lii muy def du noonu parce que défaillance bi mu ngi commencé ci moom li tax mënuñu dundi sa responsabilité dans cette affaire moo di moom moom moo ñu demandé woon loi d'habilitation moom moom moo yëlif ministre yi comme ni ma ko waxee moom moomu la ñu defaloon confiance kon te ba pare défaillance la def ndax ces organes de contrôle muy IGE ak OFNAC ak le su le contrôle interne des ministère lu tax fonctionné wul ba beneen pouvoir parce que même parlement fonctionné wul ci affaire Covid bi parce que le parlement bi ñu ko interpellé le 15 juin 2020 mais ku nekk xam na la ca mujj kon nag su fekkee ne exécutif fonctionné wul. parlement fonctionné wul la justice son organe de contrôle muy la cour des comptes fonctionné génne ay rapport mais nécessairement na justice bi comme que commencé na lu baax na continuer jusqu'au bout te qu'on me pas que la cour des comptes am na instance boppam am na instance de sanction boppam parce que dans ce cas précis kenn waxu fi ay problème mu chambre budgétaire xëy na Cheikh Tidiane dina ci dellu si mais man waxuma ko man li ma wax man dama ne nañu activer la haute cour de justice ministres yi dem fa répondre de leur actes parce que lii c'est des fautes du faute sax crime la crime la parce que xaalis boo lekk mu indi ay dee mais loolu crime la donc loolu mënul nekk rek ci chambre de discipline mënu fa yam du ñu ay fonctionnaires ay ministres lañu ay ministres lañu yu am possibilité di di di di di di gérer les recettes et les dépenses de leur ministère ils sont responsables pénalement ils sont responsables civilement ils sont responsables de tout ce qui se passe dans les ministères je parle en connaissance de cause dès lors mënuñu yem ci nañu sanctionner ay DAGE bu ëllëgee DAGE yi ñu jaar leen ci beneen porte daal de ni leen booy mal la sacrifié woon mais dinaa la wutal dara non loolu amul lii c'est l'argent du contribuable c'est l'argent des sénégalais ñu wëlbatiku en dehors du budget de l'État sénégalais yi consentir des efforts def ko ci kon dañu war a topp dossier bi ba fu dossier bi yem te fii laa leen di waxee et de façon solennelle que mu ngi ñuy teg ay problème de mu ngi ñuy divertir de parce que nag ñun gor lañu Ousmane Sonko bu ko bëggee ak su ko bëggul lu mu dugg dinañ ci duggandoog moom comme niñ ko mës a defee te booba yeewi askan wi xewul bañ koy def dañ ko defoon pour bañ injustice te bañ injustice boobu nga xam ni kooku c'est le sénégalais sénégalais ci boppam moo bëggul injustice bénéficier wu na ci keneen bénéficier wu na ci ba mu nekk li mu nekk tey kon ba ñu bañee injustice ci lii te loolu nag Ousmane dama lay wax léegi ni la moomoo ko c'est-à-dire que nit ñi par principe lañ koy def parce que nit da jëm dara wala doo ko gëm te soo gëmee dara da nga ciy am constance bu la bu jaral bu la jaral nga di ko défendre ak nu ko mën noo ko mën a défendre te sénégalais yi ci foofu lañ nekk mën naa wax tey ci seen tur fi ñu nekk moo di gisuñu Ousmane ko dañu gis benn injustice buy dal ci benn sénégalais boo xam ne am na mérite ñuy sant yàlla nag bi nga xamee ni sénégalais boobu dafa bokk ci suñu làng ñun muy la coalition yeewi askan wi te yeewi askan wi mësul ñàkk fayda kuy xeex xeexu jàmbur bërki démb bi ñu dindee euh, euh, euh, mandat wu Aminata Touré ñun dañu def communiqué taxaw parce que d'accorduñ ci parce que suffrage yu jigéen dafa metti jigéen ju la liggéeyal defal la dëgg la moom moo ko soutenir ba mu am suffrage yooyu waaye xam na it ni moom président Macky Sall li muy wax jigéen ñi d'ailleurs war nañoo xam finalement fi mu leen féete parce que ba dem na ca Bambey jël benn jigéen boo xam ne opposition la nekk wut suffrage yu boppam boo xam ne moom dërëm demu ci joxewul otoom pour kooku wuti suffrage nangu ko kon bu nangoot ay suffrage bi nga xam ne moo soutenir ki ko am teewul yeewi askan wi seetuñu loolu seetu ñu ne Aminata ba ñuy jël sunu suffrage ñu ngi ànd ak ñoom ñun dañ koo soutenir par principe dañ koo soutenir c'est une question de justice parce que injustice baaxul nangu yëfu nit te teguloo ko fenn teguloo ko ci benn loi bu boobaa dëkk bi nekkatuñu en sécurité parce que dëkk yoon moo koy doxal loolu nag su fekkee ne am na dañuy alerter te encore rek di alerter te du ñu noppee di alerter comme que ñi nga xam ne bu dara xewee ñu duñu ñu bañ a dal ci suñu kaw ne war leen ko woon a seetaan ah bala ñoo dara di xew dinañ leen wax ni leen lii dey dem nañ ba xam suñu information ak suñu xam-xam may nañu ne lii raam ci ñag bi la jëm te bu fa demee ba am fa kër dootu fa gaaw a génn te loolu moo loolu laa bëggoon waxtaan ak yéen maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaam. merci madame la président ma jox le président Cheikh Tidiane mu wax ci autant pour moi il ne faut pas qu'on l'appelle président bi. madame mu wax ci cour des comptes moom it haute cour de justice ak chambre de discipline financière. Bonjour, euh, mesdames, messieurs les journalistes. Permettez-moi à l'entame de mes propos d'avoir une pensée fraternelle à tous nos frères et sœurs détenus arbitrairement au niveau des, pris au niveau des prisons de ce pays. Je pense à Fadilou Keita, Amidja, et tous les autres camarades qui sont aujourd'hui à Rebeuss, Sébikotane ou dans les autres prisons, mais plus particulièrement à nos deux camarades et frères Massata Samb et Mamadou Niang. Je leur dis de tenir bon. Je leur dis que nous ne les oublierons pas. et que nous nous battrons jusqu'au jour de leur libération. Je préciserai également un mot à l'endroit de toute l'opposition sénégalaise. Le président Ousmane Sonko ne veut pas du tout qu'on parle des affaires qui sont encore pendantes devant la justice, mais notre solidarité est une solidarité sincère et fraternelle. Et c'est la raison pour laquelle j'en appelle à toute l'opposition, de tous bords. Leur faire comprendre que ce combat n'est pas le combat de Ousmane Sonko. Je l'ai dit et répété lors du rassemblement de Kermassar. Ce n'est ni le combat d'Ousmane Sonko, ni le combat de Pastef, du parti PASTEF, ni le combat de la coalition Yehui Askani, mais c'est le combat de tout le peuple sénégalais. J'insiste sur le fait que l'opposition dans sa globalité doit se tenir debout parce que si Ousmane Sonko est réduit à sa plus simple expression, comme l'a dit et répété le président Macky Sall, il n'y aura plus d'opposition dans ce pays. Il y aura une suite logique. Il va exterminer toute l'opposition au niveau du Sénégal. Donc, raison pour laquelle toute l'opposition doit se tenir debout et qu afin qu'on puisse faire face à ce président de la République, M. Macky Sall. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais également attirer votre attention, vous les journalistes, attirer l'attention de tous les Sénégalais imbus de justice qui sont dans le combat pour redresser ce pays. Je leur demande de faire très attention. Car l'histoire politique du Sénégal retiendra que le président de la République Macky Sall est le plus grand spécialiste en matière d'allumage de contre-feu. Il est très fort. Et vous remarquerez sur le rapport de la Cour des comptes, la présidente Heidenboch a fait un exposé et je me vois encore désigné de vous en parler pour la simple et bonne raison que ce rapport, il veut qu'on l'oublie. Il veut qu'il soit relégué au second plan. C'est pourquoi il allume des contrefeux. Nous avons vu récemment un livre, un torchon d'un mercenaire, maître chanteur bien connu dans la sous-région, qui d'ailleurs, par élégance, j'avais pas voulu parler de lui parce qu'apparemment il est à terre et quelqu'un qui est à terre, on ne tape pas mm. sur quelqu'un qui est à terre. Vous avez vu également la sortie de l'ancien procureur de la République qui a raté l'occasion de se taire à jamais, car l'histoire de notre pays retiendra qu'il a été le procureur de la République le plus minable de cette histoire judiciaire, politico-judiciaire de notre pays. C'est la raison pour laquelle il, vous, il me plairait d'attirer votre attention sur le fait de ne pas trop vous attarder sur ces contrefeux. Et au-delà de ces contrefeux que je viens de vous lister, maintenant il s'adonne à tout ce qui est deepfake. Et croyez-moi, c'est un forfait illimité dans la manipulation. Soyez pas surpris demain que des vidéos de la conférence des leaders de la coalition Yehui Askanui soient diffusées avec des leaders qui font allégeance. puisque tout est possible avec les deepfakes. Donc faisons très attention. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le combat, c'est le départ de Macky Sall. Il me plairait en plus de vous dire que le Sénégal est devenu, par la force des choses depuis un en poids lourd dans la mauvaise gouvernance. Tout à l'heure, le doyen Abipsi avait commencé à vous lister un nombre de scandales qui ont éclaté depuis 2012. Il en a cité certains. L'affaire ArcelorMittal, les fausses commandes de la SAR de 40 milliards, les contrats d'armement du ministère de l'Environnement, l'affaire Et la, la liste, elle est longue. Elle est très longue, cette liste. Et le dernier scandale n'est rien d'autre que le fonds Covid. Et ce fonds Covid, le président de la République ne veut pas qu'on en parle. Il ne veut pas qu'on parle de ce rapport. Mais nous, Sénégalais qui avons contribué à ces 1000 milliards, de façon directe, ou bien de façon indirecte, puisque tout ce qui a été donné par les partenaires techniques financiers seront remboursés par les Sénégalais. Donc nous ne devons pas nous taire. Et en réalité, comme l'a dit tout à l'heure la présidente Aidenbock, la coalition eu Askanui demande solennellement la mise en place de la haute cour de justice. Car Le premier responsable en chef n'est rien d'autre que le président de la République, Macky Sall. Et je vais vous l'expliquer. Avant même d'en arriver à sa responsabilité, je vous parlerai des 17 milliards qui ont complètement été oubliés, des Finances lors de son point de presse, avait minoré, minimisé cette surfacturation estimée à 6 milliards et quelques en disant que c'est simplement de gestion. Mais en plus de ces 6 milliards, il y a 2, 19 milliards à des fins aucunement liées la lutte contre la COVID-19. Et dans ces 19 milliards, il y a 17 milliards pour payer les de la sphère ministérielle de Djamnyadjo. de constater que ces 17 milliards avaient fait l'objet d'une sur la loi de finances initiale de 2020, votée par le Parlement sénégalais, qui avait alloué pour le paiement de, de ces loyers de la sphère ministérielle 17 milliards. Et ils viennent encore utiliser 17 milliards du fonds Covid pour payer ces loyers de la sphère ministérielle. Donc vous voyez qu'il y a un double emploi. Et le ministre du Budget et des Finances considère que c'est simplement une faute de gestion. Et force, de constater, et force est de constater qu'il n'y a pas eu de loi de finances rectificative Donc où sont passés les, 19, les 17 milliards qui ont été votés par le Parlement Et cela est valable pour d'autres dépenses qu'ils ont tirées de ces 1000 milliards de la force Covid. Ce rapport de la Cour des comptes, et vous comprendrez pourquoi le président de la République ne veut pas qu'on en parle, pourquoi il allume des contre pour détourner l'attention des Sénégalais, l'attention de l'opinion nationale. Il est le responsable en chef, Macky Sall. La force, COVID, la qui résidait au niveau du ministère des Finances et du Budget avait mis en place deux organes, un conseil stratégique et un comité technique. ces deux organes étaient chargés de gérer les orientations et les, allo et les allocutions et les allocations, autant pour moi, des, des fonds qui devaient être adressés aux différents ministères sectoriels. Mais comme vous l'avez tous <laughs> remarqué, ces deux organes n'ont jamais fonctionné. Il n'a jamais eu de réunion de ces deux organes. le conseil stratégique qui devait étudier les orientations et, les, et, et, comment répartir les fonds au niveau des ministères n'a jamais fonctionné. Pourquoi Parce que le président de la République a décidé que ces attributions devaient être traitées simplement par le Conseil des ministres. Devaient être traitées en Conseil des ministres. Et vous rappelez-vous, Madame euh, Aydembout, la présidente Aïda l'a précisé tout à l'heure, le président de la République avait bénéficié d'une loi euh, d'habilitation qui lui permettait de gouverner par ordonnance sur des mesures qui relevaient du domaine de la loi, ce qui lui permettait d'avoir les coups des franches, de faire ce qu'il voulait. Et c'est ce qu'il a fait. Il y est allé tête baissée. Il n'a pas hésité. Il avait les coups des franches et il a utilisé tous ses prérogatives en reprenant les attributions de ce conseil stratégique, en décidant que tout sera traité par le conseil des ministres. Donc il était au courant de tout, le président de la République. C'est le président, les, les, les, les, montants qui ont été alloués aux différents ministères ont été décidés en conseil des ministres. Donc il était au courant, Macky Sall. Et aujourd'hui, ils viennent pour nous dire que ce sont les DAGE qui sont les responsables. Le premier responsable en chef, c'est le président de la République. Il était au courant. Il a tout organisé, il a tout administré. Vient en second lieu ces ministères, les ministères sectoriels qui ont été euh, cités dans ce rapport de la Cour des comptes. Et éventuellement, dans une moindre mesure, les DAGE, puisque les DAGE ne sont que des exécutants. Ils ne sont pas des, des, des ordonnateurs, ce sont des simples exécutants. À partir de là, nous demandons formellement la mise en place de la Haute Cour de justice pour que le président de la République soit jugé pour haute trahison, pour que les ministres soient aussi jugés. Au-delà des des, des, des 14 ouvertures d'informations judiciaires demandées par les magistrats de la Cour des comptes, il convient de préciser que le groupe parlementaire de la coalition Yehui Askanui a saisi le président de l'Assemblée nationale. Ce monsieur, je n'ai pas arrêté de vous le dire, est en danger pour la République, le président de l'Assemblée nationale. Comme vous l'avez constaté, il s'est empressé à saisir le procureur de la République pour faire emprisonner nos frères Massata Samb et Mamadou Niang. Il s'est également empressé à convoquer le bureau de l'Assemblée nationale pour destituer Mimi Touré. Mais il fait le mort quand il s'agit de la saisine du groupe parlementaire pour que la Chambre de discipline financière soit activée. Il ne répond pas. parce qu'il sait très bien que même si cette Chambre, les sanctions seront que ne seront pas des sanctions extrêmement importantes, contrairement à, à, aux autres sanctions demandées euh, par, par l'ouverture d'informations judiciaires, mais c'est en droit. Cette chambre de discipline financière doit être saisie. Le procureur général de la Cour des comptes doit être saisi afin que tous les concernés tous les auteurs de ces irrégularités soient attraits devant cette Chambre. Donc vous comprenez pourquoi le président de la République allume des contre pour qu'on oublie, pour que le rapport de la Cour des comptes soit relégué au second plan. Parce que lui-même, il est le premier responsable en chef. Faudrait qu'il soit traduit devant la Haute Cour de justice pour haute Je terminerai mes propos en Wolof puisque boobu ba léegi ñu ngi bëri na ci sénégalais yi wax nañu toog waxtaan waaye waxtaan am na solo ba ñu ko waree woon def yàgg na président yi fi jàll yépp bu réew mi amee ay difficulté dañuy toog waxtaan waaye ki fi nekk ak ñi mu àndal ñu bari nee nañu ñoom euh, ils réfléchissent avec leurs muscles ba tax na doole la ñuy jaay ci lépp waxtaan nekkul seeni mbir donc duñu ñëw ba toll fii ñu naan nañu waxtaan kan ngay waxtaanal ki nga xam ne nii askan bi daf ko jox lépp lu mu am ci am-am askan bi jox ko dooleem askan bi ne ko ñun ñu ngi nii ci mission bi nga xamante ne ni dénk nañ la ko tànnal ci ñi ëpp xam-xam ci ñun tànnal ci ñi ëpp jikko ci ñun tànnal ci ñi nga xamante ne ni seen réew seen askan moo leen yitteel nga tànn leen ci ñoom moom mu ne déedéet du def loolu damay tànn ay cancre ñu may jàppale ci mission boobu étant donné qu'il est entouré de cancre donc loolu moo tax si mu nekk ni njombe yu bëri yi tax na bëggul joxe nguur gi lan la ñuy waxtaan ak moom ba muy jëw ci nguur gi 2012 dégg nañ lépp li mu wax bi muy foqati ci foqati nguur gi en 2019 déggaat nañ li mu wax waat na ci alxuraan waat ci toora waat ci injil ne du def troisième mandat ne képp ku luubal dana la tëj képp ku dëngal dana la yóbbu ci justice bi waaw loolu mu ci waxoon yëpp defu ci dara kooku lan la ñuy waxtaan ak moom moom mu waat ci ne ñaari mandat lay def benn bi jàll na bi ci des li ci des bëreetul ñett ay quelques weer moo ci des mu bëgg a agrippé wu ci pouvoir bi parce que njombe yi mu def bëri na xam na ne bu fi jógee gannaawam dana tàng jër ñi mu àndaloon ñëpp ba muy xeex ca njalbeel ba dàq na leen lu ay transfuge rek la nekkal transfuge yoo xamante ne nii ñoom ñoo doon xelaal Abdoulaye Wade naan kan toogal ba askan wi jóg jàkkaarloog Abdoulaye Wade ñu jóge fa ñëw ànd ak Macky Sall naan kan toogal toogal mais yaakaar na ne li askan wi mayul Abdoulaye Wade dana ko ko may déedéet bu ko yaakaaree dafay naax boppam donc kooku amuñu lu ñuy waxtaan ak moom waxoon na ne du def ñaari mandat ñu def ñetti mandat ñaari yi mi ngi jeex li ñu koy ñaan mooy mu jël ay dëbësam te dem te ñuy wax di ko wax moom ak ñi nga xam ne nii ñoom lu ñu àndal ñu leen di wax ne leen mieux vaut tard que jamais nguur gi day jeex fekki weer li ngeen def méngoowul ak li loi wax li ngeen luubal daa ngeen ko layoo et plus ngeen di entêté dangeen da ngeen di aggraver seen situation reprenez votre conscience ñëw leen toog ci weti askan wi def leen mea culpa jéggalu leen bu ko defee ëllëg askan bi mën a xool ci loolu lu ñu leen mën a jéggal ñu jéggal leen ko waaye si vous forcez la main aux concitoyens au peuple sénégalais vous irez droit dans le mur et ce sera trop tard pour vous sauver te Macky Sall moom ci boppam xam na ne ñëpp bàyyi nañ ko le président Déthié Sa Déthié Fall wax léegi nii ak li nga xam ne nii ci la ñu jëm président Ousmane Sonko war ko leeral moo leen di wan ne occidentaux yi sax ñu ngi ko commencé bàyyi parce que ñoom xam nañ ci seen bopp këni Macky Sall fi mu teg tànkam du fu baax ñoom ñu ngi koy bàyyi gis ngeen rapport bi nga xam ne ni Déthié précisé na ko le groupe de travail bu Nations Unies sur la euh, détention arbitraire am na beneen rapport it sur lu l'Union européenne dinañ ci ñëwaat fekki fan ak rapport département d'État américain ak li ngeen mujj dégg Figaro ko xam Figaro fa mu situé wu ci France ngeen war a xam ni Macky sàll fi mu nekk nii amatul kenn ku ko ku ko téye ñëpp bàyyi nañ ko. donc ñi mu àndal nag ñu leen di wax ne leen yeewu leen balaa seen réveil di brutal wala balaa seen réveil di di di di di trop ñu ngi leen di wax ngeen dellu seen xel te it di wax kilifa diine yi wax leen ak Macky sàll mi ngi sànq boppam mi ngi sànq njabootam mi ngi sànq ñi ko wër wax ak moom mu teggi tànkam fii nga xam ne nii fa jëm balaa muy yeex mën ngeen wax ak moom wax leen ak moom muy ci jàngu bi muy ci diine lislaam am na sénégalais yi yaakaar bu ñu am ci yéen loolu tax na ngeen war ji wax ak Macky sàll ñun nag opposition bi amuñu dara lu ñu war a def lu dul défendre askan bi te ci loolu la ñu nekk donc ay waxtaan toog ak Macky Sall loolu wax ju yàqu la moom mi yore armeem yore police am yore justice di dóore di tëjaate moom la ñu war a wax mu arrêté te préparer ay bagage am pour dem dem bi nag mën na yomb maa ngi jégal ci guddal bi ñeent président yi nga xam ne ñoo ñu wër ñett ñi ñu wër plutôt gis nañ seen situation fi mu nekk kenn ki exilé na Guinée équatoriale keneen ki exile na Turquie ki ci des mu ngi nekk en procès actuellement donc moom nag na choisir ci sort bi nga xam ne nii moom la bëgg donc la ball est dans son camp waaye ñu ngi leen di wax di leen waxaat ne leen la coalition Yewwi Askan Wi demande solennellement la mise en place de la haute cour de justice afin que le président de la République Macky Sall soit jugé pour haute trahison de même que ses ministres wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf léegi ma jox kàddu gi président Ousmane Sonko mu waxtaan ci ay ñaari mbir yoo ay sart lañ ko tax diggante ak France ak li jëm ci train express régional ak euh, waxtaan ak réew yi nga xam ne dëkk Sénégal merci président Habib euh, j'avais insisté auprès de, du président Déthié Fall et du président Habib Sy euh, non pas parce que je ne cette problématique soit abordée, mais parce que je voulais qu'on essaie de centrer cette conférence de presse sur les thématiques extrêmement importantes qui ont été retenues et qui nous permettaient de ramener le débat public sur l'essentiel. Je crois que Ahmed Yanium vient de le dire, l'une des plus grandes spécialités du régime en place, c'est euh, l'allumage de contre-feu. Et malheureusement, avec une tendance à emporter une partie de l'opinion et de la presse dans des débats secondaires au détriment de l'essentiel. Et moi, ce que je considère comme l'essentiel, c'est ce qui impacte réellement sur la vie des Sénégalais et des Sénégalaises qui souffrent comme jamais. et l'objectif de cette conférence de presse c'était pour Yewwi Askan Wi de ne pas tomber dans ce piège du contre-feu et de ramener les débats sur un certain nombre de problématiques essentielles articulées autour de la gouvernance publique dont l'illustration la plus parfaite est le rapport de la Cour des comptes, la question des libertés et de la démocratie sur lesquels, pour cette fois-ci, parce qu'on avait l'habitude justement de ne parler que de questions, de, de ces questions que sous l'angle intérieur, mais aujourd'hui, sur le plan international, beaucoup d'organismes internationaux se sont intéressés à la situation du Sénégal et ont produit des rapports. Mais également euh, les questions liées à au processus électoral lui-même, mais qu'on avait décidé de reporter à une autre date, dans les jours à venir. Dans la répartition euh, des temps de parole, il, il m'est revenu la charge de traiter ou de m'adresser à la communauté internationale. Vous remarquerez que depuis quelques jours, il y a eu Askanui, s'adresse beaucoup à la communauté internationale. Parce que nous sommes rendus compte que nous avions plus ou moins délaissé cet euh, espace extrêmement important. Nous savons tous que le régime de Macky Sall est totalement fini au Sénégal, à l'intérieur, au niveau des opinions, au niveau des électorats. Nous savons tous, et lui le sait mieux que tout le monde, qu'il est extrêmement minoritaire et minorisé dans le pays non nonobstant les pratiques de fraude massive qui lui permettent de réduire un peu, ou en tout cas de maquiller cette euh, minorité qui est la sienne aujourd'hui au Sénégal. Et son terrain de prédiction aujourd'hui, c'est l'international, au niveau multilatéral comme au niveau bilatéral. Nous savons tous qu'il est aujourd'hui en France, certainement pour aller se livrer à une séance d'explication après son audience avec l'extrême droite. et pour aller, comme il a l'habitude de le faire, dépeindre l'opposition sénégalaise comme une opposition qui serait foncièrement anti-française, anti-occidentale, anti-ceci, anti-cela, et se présenter comme le seul garant des intérêts occidentaux. Et c'est pourquoi Yehu Askanu a décidé de ne plus laisser ce terrain également. Parce que nous sommes dans un monde ouvert, personne ne peut s'enfermer sur lui-même, aucun leader ici présent de Yewwi Askan Wi dans son programme individuel comme dans le programme global de Yewwi Askan Wi il n'a jamais été question d'être contre qui que ce soit il a été question beaucoup plus d'être pour nous-mêmes avant tout en tant que Sénégalais en tant qu'Africains et dans ce monde ouvert globalisé le Sénégal a des partenaires et ces partenaires sont importants pour le Sénégal Et le Sénégal est important pour ses partenaires, pour des raisons peut-être différentes, mais il y a une importance mutuelle que les partenaires s'accordent. Le Sénégal a beaucoup diversifié son partenariat depuis quelques décennies, de sorte qu'aujourd'hui, c'est un partenariat mondial, sans exclusif. Et le Sénégal se trouve dans un contexte international extrêmement préoccupant où la compétition entre ce qu'il est convenu d'appeler les grandes puissances euh, va de plus en plus se jouer sur le terrain africain. Et c'est pourquoi je salue, nous saluons tous Yahweh Askani. Nous accueillons avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction la déclaration du pape François hier à Kinshasa, euh, qui reflète exactement nos préoccupations. sans que cela relève d'une euh, quelconque adversité ou animosité vis-à-vis -vis de nos partenaires. Il y a quelques mois, j'avais dit à une certaine puissance qu'il est temps qu'elle lève son genou du coup de l'Afrique, et notamment de la France qui est l'ancienne puissance coloniale. Le pape aujourd'hui a lancé un appel très fort pour que les gens arrêtent d'étouffer l'Afrique, d'exploiter l'Afrique. Et ce message est bien reçu par tous les progressistes africains, tous ceux qui veulent d'une Afrique souveraine, connectée au monde, coopérant avec tout le monde, mais dans le respect mutuel et dans des partenariats gagnant-gagnant. Et c'est cela que nous avons toujours dit. Malheureusement, le message avait été mal perçu. Il y a eu beaucoup de manipulation des opinions, de, de partenaires, bilatéraux comme multilatéraux manipulation entretenue ici même par le régime politique pour leur faire croire qu'ils ont en face d'eux une opposition irresponsable, extrêmement violente, foncièrement anti-intérêts occidentaux ou français ou je ne sais quoi, manipulée par la Russie ou je ne sais qui. J'ai pu dire ici qu'aucun de nous ici autour de cette table n'a de contact avec aucune puissance étrangère. Personnellement, je ne suis en contact depuis que je suis en politique avec aucune puissance étrangère, ni occidentale, ni russe, ni asiatique, ni je ne sais quoi, chinoise. Nous n'avons aucun contact avec une puissance étrangère. Nous n'en discutons avec aucune. Nous ne sommes manipulés par personne. Et cette vision paternaliste tendant à infantiliser les Africains qui seraient incapables de réfléchir par eux-mêmes et qui seraient totalement manipulés dès lors qu'ils émettent un avis contraire doit cesser. Et si nous insistons, c'est que nous pensons que de plus en plus notre discours est entendu. Il était écouté. Maintenant, il est entendu. Je crois qu'il est de plus en plus compris également. Et c'est tant mieux. Parce que l'avenir des relations entre le Sénégal et tout autre État étranger, l'avenir des relations entre l'Afrique et le monde n'est plus cette vision focardienne qu'on avait de l'Afrique, mais cet avenir, c'est les discours comme les nôtres qui pourront le définir. C'est entendu parce que, au niveau multilatéral, des organismes internationaux se sont enfin intéressés à la situation préoccupante du Sénégal et ont produit des rapports Je voudrais que nos amis de la presse, de la société civile, que tout le monde s'intéresse un peu plus à cela. Hier, on s'est réveillé avec des titrailles. On disait que le Sénégal serait devenu un État extraordinaire et entrer dans le top 10 de l'indice Mo Ibrahim. Ce qui est ridicule d'ailleurs. Si tel est le cas, il faut, il faut s'inquiéter de l'Afrique. Il faut s'inquiéter sérieusement de l'Afrique. Mm. Si aujourd'hui, un pays où en plein en pleine pandémie de Covid, des autorités ont pu faire ce qu'ils ont fait avec le bien public. On dit que c'est un exemple en matière de gouvernance, qu'il faut s'inquiéter de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe dans les autres pays de l'Afrique, finalement Et pourtant, on a voulu en faire un truc. D'autant que sur les indices les plus importants, on a même pas évolué d'un point, notamment sur l'indice de perception de la corruption. Voilà des rapports qui beaucoup plus profonde et beaucoup plus grave pour le pays. Et quand le rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association, parce qu'en réalité, ce que Détier a lu, c'est le condensé de trois organes. Il y le rapporteur spécial sur les droits de réunion pacifique et la liberté d'association, le groupe de travail sur la détention arbitraire et le rapporteur spécial sur les exécutions extra judiciaire, arbitraire et sommaire. Quand ces trois-là s'intéressent au cas du Sénégal et adressent une note à l'État du Sénégal sur un seul, une seule, euh, un seul événement, c'est-à-dire tout ce qui a, qui suivi la, le blocage de notre liste de titulaires, de nationale de titulaires lors de, des élections législatives passées. Les tentatives de manifestation, les arrestations arbitraires, les exécutions qu'il y a eu à Ziguinchor à Bignona, ils n'ont même pas été beaucoup plus loin. Parce qu'en termes d'exécution sommaire, de morts suspectes, de disparitions, il y en a eu. Le cas de Mankaboué là, non encore élucidé. Un gaillard comprend très sain de ses rues, et qu'on sort, euh, euh, euh, dont on plus tard une dépouille mortelle. Il a le cas des deux de l'armée, dont l'un est encore introuvable. Au Sénégal du XXIe siècle, ce qu'on n'a jamais dans notre pays. Nous les exécutions qu'il a eu lors des de mars 2021. Et à côté de ces rapports-là, il y a le rapport du département d'État pour Ces rapports auraient dû faire l'objet de gros titres dans ce pays-là. Mmh. Des rapports qui disent que des 14 morts de, des événements de 2021, au moins les 10 ont été exécutés par euh, euh, les forces de l'État. C'est extrêmement grave. Et on doit en parler. Et c'est une bonne chose que ces institutions internationales enfin s'intéressent à ce qui se passe au Sénégal. Et n'écoutent pas seulement le discours ambiant du régime. Et si l'opposition sénégalaise a un problème euh, euh, au niveau international, c'est que nous avons l'impression que depuis que Macky est président, je ne sais pas parce que c'est parce que peut-être il y a eu du pétrole et du gaz et qu'il l'utilise comme moyen de chantage sur un certain nombre de puissances. Mais les gens ont peur maintenant de s'adresser ou de, de, parler avec l'opposition sénégalaise. Il n'y a pas à, à peu près une vingtaine de jours, un peu plus, Yewwi Askan Wi a adressé des correspondances à l'Union européenne et à l'ambassade des États-Unis pour dire que nous souhaiterons nous entretenir avec eux officiellement sur la situation du pays. Jusqu'à présent, on n'a pas encore de retour. Qu'est-ce qui a changé Auparavant, les puissances étrangères établies au Sénégal rencontraient et discutaient librement avec toutes les parties prenantes. Mais on a l'impression que depuis quelque temps, j'ai l'impression que c'est peut-être parce qu'il y a un chantage sur le gaz particulièrement, sur le pétrole et je ne sais quoi. C'est comme si les gens avaient peur de rencontrer et de discuter l'opposition sénégalaise. Et c'est pourquoi nous considérons que ces rapports vont dans le bon sens, de même que le rapport de l'Union européenne sur le processus électoral, qui est un rapport en charge contre l'État sénégalais et ses pratiques frauduleuses, les pratiques pour euh, empêcher des candidats de, de, pouvoir candidater, le parrainage, les pratiques liées à euh, à la rétention sur le fichier électoral, les pratiques liées à la rétention des cartes d'électeurs pour les primo-votants notamment, et beaucoup d'autres pratiques. Et c'est sur toutes ces questions-là que nous avions souhaité, nous, pouvoir rencontrer les différents organismes, euh, aussi bien dans le cadre bilatéral que multilatéral, et échanger. Non pas parce que nous voulons leur implication directe, mais parce que c'est des partenaires qui participent par le financement et par beaucoup d'autres moyens à ce qui se passe au Sénégal. Et sur le plan bilatéral également, nous pensons que les choses vont dans, la, dans le bon sens. Nous avons tous reçu des vidéos sur les débats qu'il y a eu la semaine dernière à l'Assemblée nationale française en commission relativement à ce projet de loi sur l'entraide judiciaire et sur l'extradition. Voilà le genre de débat que l'Afrique d'aujourd'hui veut entendre. Voilà le genre de débat et le genre de préoccupation qui rassure les Africains. Parce qu'on a tendance à dire que nous devons rassurer les autres, mais c'est les autres qui doivent nous rassurer. Parce que dans les relations que nous avons entretenues avec le reste du monde jusqu'à présent, l'Afrique a été la grande perdante. C'est ça la vérité. Et l'Afrique a plus besoin d'être rassurée que les partenaires ont compris son discours. Cette nouvelle génération politique, qui n'est pas une génération d'âge, mais une génération d'opinion, qui transcende toutes les générations d'âge, qui est très présente dans la diaspora, pour ne pas dire totalement majoritaire dans la diaspora, qui est très présente et majoritaire dans les élites africaines, dans cette formidable jeunesse africaine, étudiantes, universitaires, comme ouvrières, comme dans tous les segments, mais qui est présente de plus en plus dans toutes les masses africaines et qui comprend ce qui se passe, qui est connecté au monde, qui suit. Il est temps que le reste du monde comprenne qu'il a désormais affaire à des peuples majeurs qui ont fait leur mieux et qui comprennent où se trouve leur intérêt. Et ce n'est pas en mettant des présidents de la République, en leur donnant des blancs et en fermant les yeux sur leurs exactions contre leur population, dès lors que ces présidents de la République satisfassent à, à, à, aux intérêts de ces, de ces puissances étrangères, qu'on qu pourra continuer à perpétuer une relation saine. Et le débat qu'il y a eu à l'Assemblée nationale française, d'abord par rapport au projet de loi lui-même, les préoccupations des parlementaires français, que ça ne soit pas un instrument politique pour persécuter de l'opposant, pour persécuter toute opinion divergente de la société civile, des journalistes, des euh, artistes et de toutes les composantes, que ce soit sous le contrôle du juge et non pas simplement des autorités politiques, mais également la préoccupation de ces députés sur la situation de l'état de droit au Sénégal, la persécution des opposants. les emprisonnements arbitraires, la velléité d'un troisième mandat. Que ces débats-là puissent se tenir à ce niveau rassure les Africains, rassure les Sénégalais et nous prouve que nos partenaires sont en train de comprendre le discours que nous leur tenons. Il n'a jamais été question d'être contre X ou Y, mais il faut qu'ils comprennent qu'à chaque fois qu'ils fermeront les yeux sur les exactions, sur les manipulations constitutionnelles pour que des présidents de la République se perpétuent, à chaque fois qu'ils fermeront les yeux sur ces pratiques, ils alimenteront un sentiment anti-français ou un sentiment anti-occidental. Ce n'est pas par rapport aux Français, mais c'est par rapport à la politique de l'État français. Les Sénégalais n'ont pas de problème avec les Français. Les Sénégalais n'ont pas de problème avec les Américains ou les, euh, les Allemands. Ils ont un problème avec des pratiques d'État, des politiques d'État. Sur on ne peut pas dire, dire que les, les, les, les, nos partenaires sont responsables de tout ce qui se passe ici. Loin s'en faut. Ils ne sont pas responsables des détournements de deniers publics. Ils ne, pas, ils ne sont pas responsables de la malgouvernance. Ils ne sont pas responsables des mauvaises options en matière d'investissement. Ah non, ça c'est notre responsabilité. Mais sur le plan économique, ce que nous demandons, c'est que les relations soient gagnant-gagnant. Aujourd'hui, c'est gagnant-perdant. Et ce qui se avec le terre en est une illustration. Je rappelle qu'en 2017 en tant que député, j'avais adressé une question écrite au Sénégal. Et j'avais dit dans cette question écrite qu'en récapitulant les contrats, j'avais vu un écart de 224 milliards par rapport au montant qui était pour la construction du terre. Je pas des questions d'opportunité. Aujourd'hui, nous avons un outil qui est obligé d'être sous perfusion de on dit que oui, c'est une option, on a décidé de subventionner pour que le prix soit abordable. Et pourtant, on lâche la subvention sur les produits pétroliers, qui est beaucoup plus vital pour les populations. Mais là-bas, on subventionne parce que ça doit bénéficier à des entreprises françaises. Et jusqu'à quand on sera dans, cette, dans ces relations léonides, au détriment de nos peuples, on pompe tout ce qu'on a, le peu qu'on a, pour des infrastructures dont le rendement est douteux, et on nous dit que voilà, c'est un bon partenariat pour le Sénégal, et nous l'acceptons. Pourtant, même en France, des voix pour dire que ça, ce n'est pas bon, il faut arrêter. Parce que celui qui était PCA du Terre, qui est un franco-sénégalais, un français qui depuis quelque temps a une nationalité, vous verrez que l'article du Figaro en a parlé, avait dit que ça, c'est pas bon pour le, pour le Sénégal. Il a été tout de suite remercié. Après, on dit le terre nous appartient, le terre nous appartient. Ce qu'on demande, c'est la réorientation, le réajustement, le rééquilibrage, parce que nos peuples ont droit au même bonheur, à la même prospérité, à la même qualité de vie que les autres peuples. On ne peut plus continuer à subir. Et ça, c'est pas être contre X ou Et c'est rassurant de voir ce genre de discours. Nous encourageons les autorités françaises à examiner cette voie l'avenir de la coopération entre l'Afrique et le reste du pas la coopération telle qu'elle était conçue en 1980, en 1975, en 2000 même. Non, non, non. Les Africains ont compris et veulent se réorienter. Et que déjà en 2018, quand je présentais mon ouvrage euh, Solutions pour le Sénégal le chapitre sur le franc CFA, j'assume toujours mes positions sur le franc fa que nous avons besoin d'une monnaie souveraine, conçue par et pour les Africains, adaptée à nos préoccupations, à nos, à, à, à nos, besoins, ajustable par rapport au contexte international, et non pas de cette monnaie telle qu'elle existe actuellement. C'est notre conception. Mais à la fin de ce chapitre, je rappelle ce que j'avais dit. Et c'était certainement prémonitoire je disais certains adversaires auront vite fait de nous de nous taxer d'antifrancisme primaire loin s'en faut désolé j'ai pas mes lunettes mais vous comprendrez loin s'en faut nous sommes d'ailleurs ne serait-ce que pour le principe d'une exception culturelle face aux velléités unilatéralistes d'un seul pôle pour le renforcement, le raffermissement et l'affirmation d'un bloc, bloc francophone fort et homogène dans sa diversité, mais fondé sur des rapports plutôt gagnant-gagnant que de domination dont nos pays n'ont que trop souffert. Nous souhaitons que la France entende et comprenne notre message, celui d'une nouvelle Afrique, portée par une nouvelle génération politique, citoyenne, artistique, intellectuelle, qui n'aspirent qu'à plus d'égalité et d'équité dans nos rapports avec elle, pour le progrès et le développement auquel aspirent légitimement nos peuples, nos peuples. Si elle l'entend et le comprend, cela sera salutaire pour nos relations séculaires. Sinon, elle s'achemine vers une rupture brutale et inéluctable avec ses anciennes colonies qui s'orienteront définitivement et durablement vers d'autres partenaires privilégiés. Ça, c'était en Si la France avait entendu ce discours, ce qui s'est passé au Mali ne se serait pas passé. Ce qui s'est passé au Burkina ne serait pas passé. Et ce qui risque de se passer dans beaucoup d'autres pays ne se serait pas passé. Et c'est ça le message de Yehu Askanou, que nous adressons au-delà de la France à tous nos partenaires. Nous voulons d'un partenariat solide, mais bénéfique à toutes les parties, mais pas d'un partenariat de domination. Et je conclus par cela, ce que nous avons vu depuis quelque temps nous rassure que les partenaires l'ont compris et nous disons à ces partenaires-là de tenir un langage de vérité à Macky Sall et à son régime. Qu'il ne peut pas réussir le pari qu'il s'est fixé. Qu'il ne peut pas avoir un troisième mandat dans ce pays. Le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire. Le Sénégal ne l'acceptera pas. Qu'il ne peut pas effacer des réalités politiques dans ce pays. Autant on lui connaît qu'il est une réalité politique, autant il a en face de lui des réalités politiques, sinon aussi plus fortes, du moins aussi fortes. Il ne peut pas les effacer en instrumentalisant encore une fois la justice. Le seul problème de ce pays désormais, ce n'est pas l'antagonisme entre les, les, les, partis politiques, mais c'est la justice sénégalaise qui a accepté d'être un instrument au service de la politique, un instrument au service d'un régime. C'est le seul problème. Si la justice acceptait d'être une justice impartiale au-dessus des contingences politiques, il n'y aurait plus de problème au Sénégal. Le seul problème du Sénégal, c'est un homme, un général, qui continue à donner à Macky Sall des assurances qu'il peut mater tout le monde, qu'il peut écraser tout le monde, qu'il peut marcher sur des cadavres. Un général qui dit à Macky Sall, demain si on me dit d'aller cueillir Ousmane Sonko, j'irai le cueillir quoi qu'il en Et Macky doit arrêter d'écouter ces dans tous les régimes qui sont tombés d'une certaine manière, et nous ne le souhaitons pas pour lui, ont été instrumentés, ont été motivés, ont été poussés vers l'abîme par des gens civils et militaires qui leur tenaient ce genre de discours. Il est temps qu'ils reviennent à la raison et qu'ils comprennent qu'il n'a pas hérité le Sénégal de ses parents et qu'il ne transpénétrera pas le Sénégal à ses enfants. ci tënk rek ci wolof fi may daanele mooy dalal xelu Déthié Fall mon frère bi ma nee jaruñu ciy wax dama bëggoon conférence de presse bi mu doon conférence de presse boo xam dafa ñuy permettre ñu delloo si wax ji ci l'essentiel parce que loolu dafa am solo mooy ñoom saa suñu demee rek ba sës seeni tooxi dooni feeñ sénégalais yi gis li xew dégg ngeen démb li xew ci terre bi sénégalais bu ñu xamoon li xew ci terre bi yëpp xam nga gars yi itam ñu ne parce que sénégalais yi léeg-léeg dafa neex a nax damay ragal ni ni doon naxee suñuy maam nee nañu tubaab bi bi mu ñëwee bëgg am jàpp jàpp suñuy maam ay jaam pakoti yi la leen doon naxee pakoti yi pakoti yi mooy lan ay seetu la doon andi ay yu kenn xamul seetu lañ doon jëndee jaam. dafa mel ni ba léegi loolu moo am tubaab bi ni ñuy naxee mooy lay ñëw rek jox ñu benn affaire ñu naan bii gis ngeen suñu terre bi gis comme teeru Paris mais teer boobu naka lañ ko amee lan la dikkee Sénégalais yi est-ce ñoo ko moom kan la kan kan moo ci ëpp lu mu ciy gañe fi mu toll nii loolu suñ ko laajee suñu bopp rek ak luñ ñu mënti àndil les premières question yi ñu war a laaj mooy lii naka lañ ko amee est-ce que baax na ci réew mi waaye bu dee liñ la defaral yaa ngi dem di ñëw waaye la ciy dugg la ciy la ciy feeñ ci njëriñ yëpp tugal la jëm ñoo ko moom ñoo ci am bénéfice ba pare nguuru Sénégal obligé di ci dugal xaalisam noonu la amee ci air air Sénégal bi ngeen gis su air Sénégal nguuru Sénégal day obligé di ci dugal xaalisam budget bu ñu ne subvention xam nga mooy lan mooy suñu lempo man a yow ak keneen moom la ñuy di ci dugal pour terre bi mun a daw waaye ñoom tubaab yi seen société yi ñu am. Euh, nu mu tudd ser SNCF ak li mu créer fii société bi mu créé fii SETER ak ñoom seen ñoom du ñu ñàkk mukk su jaree ñu jël suñu lempo di leen fay ñoom dañ leen di fay xaalis mais du ñu ñàkk mukk loolu mooy TER bi ngeen di dégg noonu lay amee ci BRT bi Air Sénégal noonu la amee leneen leneen noonu la amee musiba yi fi am suñ ko doon wax duñ ko jeexal moo nem de 2017 laa bind gouvernement boobu député la ne leen terre bii ne ngeen cinq cent xaw ma ñaata milliards la man de ma defee sama calcul dina ëpp mille et quelques milliards duñ ma tontoo ñoom nangu nañ ni ëpp na cinq cent milliards dinaa publier seen réponse kon ñu def alal gu toll noonu ba pare ñu ñëw naan est-ce que moom nañoo moomuñu waaye li am solo ba leer mooy Sénégal gañewu ci dara waaye day jël alalam di ci dugal tubaab bi ñoom di yóbbu xaalis bi rapport Cour des comptes baa ngi fi danañ toog ba si ñu ne est-ce que sénégalais yi am nañu capacité d'indignation parce que pour moins que ça saa nit ñi nit ñi génn ci na bi tey reforme de retraite la ñuy def France gis ngeen ñaata nit ñoo génn France ci sedd bi sedd bi fa nekk ñaata nit ñoo génn dem manifester des million nee nañu retraite beeg dañuy réformer de waaw léegi yow dootoo dootoo liggéey 60 ans waaye dañu bëgg nga liggéey 63 ans xaw ma France yëpp génn tey bi may xëy maa ngi seetaan journal deux millions cinq cent mille personnes ñoo génn Grande-Bretagne nee nañ dañoo bëgg ñu yokk seen salaire ndax ñoom sonn nañ deux millions cinq cent mille personnes waxuñu sàcc nañu alal réew mi foofu ku fa sàcc alal réew doo doo yendu doo yendu fii nag lu ne mën na faa xew Sénégalais dañ koy waxtaan ñaari fan ñetti fan mbir mi jaare foofu Macky Sall daal di créer ay contre-feu damay yóbbu fii Ousmane Sonko damay def lii ñëpp nekk ci loolu moo tax bi may wax dëccee conférence bi dafa amoon solo pour ñu fàttali sénégalais yi yenn affaires yi waaye tekkiwul ni dama bañ ñu wax ci lu jëm ci samay mbir lu jëm samay mbir tey la gën a tàng la ma wax ci Kër Massar moo fi nekk ba léegi ñëpp a ngi préparé quartier par quartier kër par kër Macky Sall li ma wax rek bu bëggee jàmm dina ko am waaye bu bëggee safaan bi dina ko am parce que ñun du ñu joxe suñu bopp li may wax toujours xale yi ku leen ne da ngeen bëri fitna dem leen toog muñ leen nangu leen ñu tëj leen kaso bëggu leen bëggul réew mi ku leen ko wax bëggu leen bëggul réew mi ku leen ne waaw ku fi dee yaa bëggul réew mi Macky Sall bu bëggee jàmm ñun jàmm lañu ñu woote ndax xeex yombul xeex dafa metti jàmm ci la lépp xaj kenn bëggul ku la dóor kenn bëggul ku la gaañ kenn bëggul ku la rey kenn bëggul li bokk si yow am xoosu xoosu sax ci yaramam waaye chaque jour dama ne yonent bu jëlee jaasi xeex dafa fekk mu sës ndax moo ñu gën te moo ñu gën a bëgg jàmm kenn gënu koo bëgg jàmm jàmm dañ koy dox te lay dox jàmm mooy ñaar ñu séq ñooy dox jàmm waaye Sénégal ngay gis ki yor nguur fii léegi mu ngi yor ay kurpeñam di dóor kenn du wax moom kay sàllaaw muñ leen rek léegi mu jeex waaye ñi muy dóor bu ñu nee sonn nañu ba ba xoog ba jóg rek ñëpp jógandoo nag bu leen fi yee fitna dëkk bi nii ak nii ak nii ku fi yee fitna nangam nangam gis nga diine gi ñun ñëpp xam nañ ko am na luñ ci xam as tuut peeguñu koy waaye am na luñ ci xam as tuut diine ci boppam la may digle fu mu ne génne leen seen kër. ay ay alxuraan daf ne génneel noonu seen kër dàq leen xeex leen ci kaw lan bu dee dañ laa xeex yow kon légitime défense sañu xam légitime défense sañu xam doo jóg rek dem songi nit ñun mosuñoo song nit duñ ko mus a def mosuñoo dóor nit mosuñoo saaga nit te ñoo ngi ñuy dóor ñoo ngi ñuy ñoo ngi ñuy saaga ñoo ngi ñuy rey ba bàkki dem mortala jàpp nañ ko bis bu ne ngeen dégg jàpp nañu nit waa ñi génn taxaw fii ne rey leen Ousmane Sonko ana ñu ñu ngi si dëkk bi di dox. Mm-hmm. injustice bi ne ci dëkk bi dafa weesu waay ba pare ñu bëgguñu koo teg ñun saa yoon nee déedéet rek ñëpp bëgg laa joxoñ gone yi laay waxal bu leen déglu loolu mm-hmm. dañoo toll foo xam ne la ñuy la nekk en ci fukki weer ak ñaar yi des la nekk en jeu mooy ñu jëlaat suñu destin en main ñu jëlaat suñu réew. coowal sàcc xaalis jeex fi coowal nangu suñu alal yóbbu bitim réew jeex fi coowal détournement jeex fi coowal clientélisme jeex fi ñu jël réew mi teel ko suñu bopp jël alal réew mi delloo ko ci biir réew mi loolu mooy suñu discours def bi ñu duggee ci politique ba léegi ku ñu naw loolu la ñu nawee fukki weer ak ñaar a ci des pour ñu egg ci loola te waxuñu waxu caaxaan de billaahi buñ ci eggee ba yàlla def li muy def ngeen xam ni Sénégal moo noonu nañ ko soppi bu yàgg yàgg yàgg bu dee yéene bi am na loxo yi set na te bëgg-bëgg ci réew mi am na moo tax nag yeewi askan wi ñi ngi réfléchir soobee yàlla fan yi xam nga ba ñuy dëgmal élection législative dama annoncé woon ne dinañu taxawal coalition bu gën a rëy ci opposition politique bu Sénégal mës a defoon nañ ko ndax Sénégal mësul am configuration bi ci assemblée nationale mu ngi doog a am may wax nag ni dinañu réfléchir benn taxawal benn rassemblement des forces vives de la nation yeewi askan wi doon na ko déjà waaye exclurul kenn acteurs yépp yi nga xam ne tey dañoo fas yéene taxaw jàkkaarloog Macky Sall ak régime am ne ko lii nga bëgg du fi amee ñëpp dinañu waxtaan ak ñoom taxawal benn cadre boo xam ne tey Sénégal kenn du kenn mësut ko gis. lu toll noonu ci rassemblement des forces vives de la nation wax ma rassemblement de l'opposition de des forces vives de la nation te nag kenn du ñu détourné ndax xam nañu seeni pratique déet bul wax ak kii moo la waxoon li bu wax ak kii moo la saagoon bul ko wax kii moo la tëjoon kaso déedéet ñun réew mi moo ñu ñor suñuy jëmmu bopp amatul solo ñu ngi ciy réfléchir ñu ngi ciy liggéey te bu soobee yàlla ci fan yi di ñëw dinañ ci dellu si waxtaan ak yéen ci lu gën a ñu ngi leen di gërëm leen sant asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërë ngeen jëf peut-être que la semaine prochaine on allah. d'accord. Je ne pour parler.